asalaamaaleykum cher internet bu African Channel dañuy amaat mbégte ak contentement jàkkaarloog yéen di leen indil li seen émission muy santé sans plus tarder dañoo ñëw fi nga xam ne mooy Kër mbay faal fekk fii suñ benn malaat ñu bëggoon xam ci lan lan lay souffrir en plus mu wax ñu turam ak li nga xam ne foofu la bàyyeekoo ak link bi nga xam ne moom la am waa association bi sans plus tarder dama koy bàyyi mu nuyoo ñu soog a ñaax ci question yi salaamaaleykum Pape. waaw soxna si tey waa African Channel ak euh, association Ndimbal Jaboot ñoo ñëw fii si kër mbay Fall seet si la ñu signalé ñu ko danga am benn problème boo xam ne moom lañ la association war a teg loxo muy maanaam affaire de protège ñu bëggoon xam tamit lii nga xam ne mooy ndogal bi la dal ñu bëggoon xam ndax judduwaale la wala soit lu la dal la lu la dab la. Ah, waaw di dellu sant yàlla rek quoi ndax bon lii judduwaale ko. accident la bi nga xam ne si bon dama jóge woon fii dem suma dëkk doon def foofu benn jaal sama benn magu sama benn rakku pap moo gaañu woon ma dem di ko jaale ji bon bi koy jaale ji man ak sama benn sœur ma ànd ak moom mu dugg bon di ko jëlal bus ba mu jëlee bus ba pare moom mu jël bus bi di dew di ñëw Dakar man ma toogoon foofu après bi may wàcc si bus bi si la ma bus bi jaar sama tànk quoi mais boobu tànk guddi la. bu mu nekkee guddi bon bus bi taxawul ko j'étais seul ci arrêt bi bon aw ma woon secours def naa fa presque trent minutes bay benn borom moto rek moo ma romb ma ma signalé ko mu ñëw mu laaj ma nu mu demee ma wax ko yëpp bon fekk car bi dem na bu mu demee bon j'avais pas bon waxoon pour woo sama sœur bi xamal ne que car bi jaar na sama tànk. sama portable xaw moon fu mu nekk quoi mu wadd nii bu mu hôpital bon bi ma woowee sama sœur bi fekk wàcce na moom itam xamuloon numéro bus bi pour mu assurance beeg yooyu quoi xam nga noonu la kaar bi demee bon nii bu mu hôpital Richard Toll ma nekk fa def fa ay soin pendant un mois bon tànk bi daal bon mujjee dem bay nga xam ne si daal vraiment euh, yàqu na quoi ma ñëw dakaar fii. dama ñëwee rek sama première euh, rencontre ak euh, médecin ba ma dem hôpital principal daf ko gis rek mu ne ma bon tànk bi yàqu na quoi il faut que ñu amputé ko quoi ah ma ne ko bon comme noonu la dogalu yàlla ñëw na bon d' accord amul problème j'ai même pas hésité bu mu waxee loolu rek bon ma nekk ko benn problème parce que li nga xam ne si dogalu yàlla moom si ñëwee rek bon da ngay nangu quoi xam ni jullit moom. su amee ndog rek dafay nangu yàlla ko <laughs> man daal bon noonu la ñëwee ci man quoi xam nga bon après def nañu tout toute tentative pour am assurance mais bon comme xamuloo numéro oto bi doo mën a toppatoo assurance bi quoi loolu moo taxawoon bon j'ai pas pu avoir l'assurance pour mën a bon yenn soins yi sax bon il a fallu que c'était dur ça été dur quoi parce que xam nga bon soo nekkee un père de famille xëy na peut-être bon sama liggéey sax après bon après def si bon daf si jaar euh, naxasaay parce que bi may dem c'était un dimanche j'avais pas eu de permission vous savez administration ak n'importe quelle société sax su amulee permission dem def accident ñoom du ñuy dégager seen responsabilité. vous voyez noonu la fa demee moom ça a été dur quoi mais doomu aadama moom da ngay gëm yàlla rek quoi. c' est ça xëy na sax loolu moo moo tax sax yu bëri euh, sonn mu si quoi vraiment parce que dama doon am ay aide partout. inopinément dafa doon ñëw inopiné may Touba Sarr rek nit ñëw jox ma enveloppe wala nit ñëw woo ma ni ma dimbali ma si ñi ma xam ni bu ñu déggee ni amplitude sama tànk am na ñu bari ñu ñu leen metti woon quoi am na ñu bu doon woy du jooy mais ku ma woo du jooy dama koy wax ni que mais li ngay jooy ki ngay waxal mi ngay dund te moo doon na dee ah bu bàyyee bon ñu bari dun doon duñ ma doon wax ni bon ñoom duñ ma jaaxal quoi parce que may leen waaw mais àdduna noonu la ah ku am accident. bay dund di wax ah da ngay sant yàlla effectivement bon man daal bay léegi nii dangay toog baya saa rek comme nii nii ngeen ñëwee nii si man nii rek ça était bon yàggoon na trop mais amoon naa yaakaar ni xam na xaw ma kañ mais dinaa am protège xëy na protège bi si yéen la ko yàlla jaarale. ah di leen sant aussi di leen gërëm parce que c'est un ami bi nga xam ne si on a cheminé longtemps mu di Demba Sabor. ci côté boobu laay lay dogee maanaam bëggoon naa xam tamit feebar bi bi mu tànk bi bi muy lay dal avant wax nga ko sànq sa biir wax la nga nekkoon di liggéey mais est-ce que bi mu la dalee amul benn impact boo xam ne ba tey jii daf la marqué visage sa famille wala soit sa entourage. bi la dogal bi dalee. loolu du ñàkk waaw mais le li nga xam ne si mooy la concerné moo mën a delloo si ñëpp quoi mm-hmm. man. li jusqu'à présent nii wax am na ñu bari ñu may gis sax su ma gisee rek duñu sëgg wala leen may leen yéen <laughs> man daal bon ma je comme ça mais j'ai pas eu problème xëy na bon problème bi yëpp mooy que ne nit ñi la quoi ñi ñoo may xool di ma yërëm wala di di wax oo xoo may leen man maa ngi sant yàlla parce que amul benn euh, métit wala leneen li nga xam ni si maa ngi koy souffrir lu dul. mën a jog dem rek dem quoi loolu kese la quoi loolu nag moom du ñàkk ci doomu aadama yéen ñi sax xëy na am na ñu ma ci waxal di ma yërëm wala di <laughs> du loolu ah justement nag ñi nga xam ne si samay doom yi parfois da ngay toog saa rek bon dama leen toujours dama leen ñu delloo si quoi ne leen lii ëpp bu leen def problème man juddaaloo ma ko c'est dama dafa accident sàccu ma ñu lekk sama tànk dawuma di def dara ñu fekk ma fa dóor ma wala ma def beneen accident la ba nga xam ne si bon il est venu inopinément mënoon naa si dee tey ngeen fàtte ma bon mais comme maa ngi dund di am yaakaar aussi si ay doomu aadama parce que tout lu ñuy wax rek tant que y vie rek y a de l'espoir kon donc man foofu laa ko teg ah. waaw. <laughs> ci foofu laay sukkandikoo tànk que y vie espoir mais ki nga xam ne moo causé accident bi. est-ce que defoon nga ay jéego pour topp ko parce que yaa ngi wax sànq daf la tii rek mu dem. waaw déggoo may la bon guddi la bu ma def accident bi guddi la parce que même accident bi mu amee man maa ngi ànd ak sama sooko moom dafa accident maa ngi ànd mais son portable laa gisutul woon quoi ci leen demaale xam nga sooy dugg oto guddi doo dem si garage bi quoi par parfois dangay ngay préférer avant garage bi wala après garage bi pour mën a am lu yomb quoi. ah n'est-ce pas noonu la fa demee woon na quoi mu nekkoon guddi mu lëndëm bi sœur bi duggee ba bi may wàcc si gannaaw ci laa def faux pas roue roue derrière bi quoi moo jaar sama tànk noonu la fa demee quoi moo tax bi ma daanoo noonu xëy na bo pour ngeen xam foofu ma fi ma nekkoon mu leen ko xam ko quoi su leen ko expliqué su leen ko kii ku nekkul côté wàll yooyu du ko xam. mais est-ce que après def nga plainte wala nga dem police. dem naa police mais ñoom aussi pour ñu mën sukkandiku ci il faut que ñu am ci loolu mën sukkandiku. numéro oto bi wala chauffeur bi wala ñu ñu xamoon bon xam nga passage ba ma xamoon rek mooy de sama sœur bi avant ma koy woo fekkat moom wàcc na waaw c'est ça quoi loolu moo tax mënatuñu woon xam euh, parce que def naa am naa fi ay xale policiers def nañu tout mais mënuñoo xam. Mm-hmm. mënuñoo xam kan la quoi c'est ça c'était donc kon foofu yoon la ñi nga xam ne ñoo nekk tali bi tamit aussi ñu bàyyi xel ci li ñuy dawal mais aussi tamit je me dis que permis yi ñuy joxe dafa teel man je me dis que bala nga jox nit permis yoon la nga jàpp ci xool carrément fu mu war a nekk parce que c'est pas responsable nga yàq vie wu jàmbur dem gestuwoo et ça ne fait tey mi ngi changer sa vie parce que yàlla defoon na ñaari tànk nga yor. tey mu changé sa vie du jour au lendemain nii kon yoon la tamit ñu sandiwaat message ñi nga xam ne ñooy dawal ñu gën a prudent ci foofu laay sukkandikoo ma laaj la li nga xam ne mooy link bi nga am ak association bi maanaam nan nga def ba xamanteek ñoom ba mu ñëw nii. waaw li ma def ba xamanteeg ñoom bon c'est un ami je dirais même un petit frère mu di Demba ñu dëkkaale woon euh, Thiaroye sur Mer. bon lu taxoon ñoo xamante sax miinante bu baax a baax dafa doon def euh, xam nga moom bon c'est un rappeur quoi c'était bon xam je ne suis plus est-ce que jusqu'à présent mi ngi continuer si affaire boobu quoi parce que y a longtemps que ñu ngi gis quoi bon après là euh, sama sama xarit ba ma doon àndal. moo ma jox numéro am quoi ni ma léegi Demba Sabor bi ngi bitim réew dafay ñëw fi temps en temps rek quoi mu jox ma numéro am juste rek après ma ma ma enregistré ko mu mu génne WhatsApp bi quoi ma gis ci association Ndimbal Njaboot après ma woo ko man di yow laa koy wax quoi man du ko wax Demba Sabor man du yow laa koy wax mu ne ma ah man du yow yow du man ma ne ko wéy mu ne ma c'est kii ma ne ko si Youssou Ndour fàtte na ma. après ma rappelé ko mu ne ma ah bon ma ne ko ñun nuyonte ba pare ma ne ko mais yow doo ma gis ci sa sa bi kii bi quoi ah, euh, profil bi ndimbal jaboot mu ne ma woy ndimbal jaboot ma ne fu mu nekk mu ne ma caaroy ma ne ko bon mais man j'avais un accident là dama bay dañ ma amputé ndeysaan mu mu ne ma non ma ne ko si dañ ma mu ne ma ne ab ma explique ko tout cela ma ne ko mooy est-ce que yéen man ngee ma wutal protege mu ne ma bon amul problème il faut il faut faire une demande foofu laa defee la demande mu ni ma ak facture proforma bi ma dem UHO ñu defal ma facture proforma bi ma indi ko noonu laa xamante waa association Ndimbal Njaboot quoi mais actuellement ni tey ngeen ñëw présent très content vraiment maa ngi sant maa ngi kontaan encore di bon vraiment euh, di leen ñaanal yàlla yàlla li ngeen mën yàlla ngeen mën diwén lu ko ëpp personnel bi aussi vraiment ñu gis ci seen bopp quoi comme ni malade bi di gis ci seen bopp si parce que vraiment tey kontaan naa trop ah parce que bon su yàlla defee par le canal de Demba Sabor bay ma am lii tey bon mën naa gërëm association bi mais aussi mën naa gërëm aussi Demba Sabor parce que si moom laa xamee lii mu jox ma directive yëpp bay ma def ko nii bay tey ngeen ñëw fi nii si man nii ah dama leen ne remercier ah infiniment waaw di leen ñaanal daal personnel bi vraiment ñu vraiment ñu dem ba ñoom itam nii ma kontaane ñoom itam nii ñuy déplacé wu ji dem ñu gis seen bopp quoi yéen ñëpp quoi waaw di leen sant di leen gërëm vraiment. ci sant gërëm boobu foofu lañuy ñuy appuyé dugal Lamine mi nga xam ne moo nekk fooy ci association bi pour mu indi li nga xam ne mooy som bi euh, mu wan. donc papa kon Lamine moo nga xam ne moom moo nekk association ndimbal jaboot andi na pour wan la li nga xam ne mooy xaalis bi te buñ ñu xoolee ni xaar bi yàgg na parce que bëggoon nañu xam tamit ban moment nga defoon accident bi ba ndimbal jaboor war cee mën a jot essence ba indi soom xaalis. waaw bon date bi nag moom bon c'était euh, février 2018 quoi Arissa Toll bon vers ay 22 heures 23 heures comme ça bon jàppatuma heure bi quoi mais c'était en 2018 quoi. waaw Arissa Tall quoi. Mhm. donc su ma jumee def na trois ans. waaw léegi kon dañuy bàyyi lamit mu wane li nga xam ne mooy xaalis bi comme ça ñu programme semaine bii nii euh, association Ndimbal Jaboor en même temps African Channel ñu ñëw indi li nga xam ne mooy protège bi parce que yàgg na trop vraiment Lamine la ñuy bàyyi mu wax. waaw salaamaaleykum mbokku internet yi ñu ngi leen di nuyu euh, di wax ni rek. Euh, avant tout dañuy gërëm la fondation Sénégindia di partenaire association ndimbal njaboot aide familiale ci programme bi nga xam ni moom la ñu nekk muy donner une pièce c'est sauver une vie c'est donner une pièce c'est sauver une vie euh, mu nekk benn programme bu yaatu boo xam ni dañ ko jagleel malade euh, képp bépp malade boo xam ni rek soxla na ndimbal te mooy demeewul noonu ñun waa association Ndimbal Njaboot ubbil nañ la suñuy buntu bu ngeen ñu bëggee jot euh, numéro fixe bi 33 la 854 98 98 wala 77 949 87 87 waaw tey alhamdulilah euh, suñu partenaire Sénégindia dimbale nañ ñu ba tey ki nga xam ni moo di Ablaye Ndour mi ñu seet si fii ci Kër Mbaye Fall. am nañ somme bi nga xam ni moom la soxla woon pour am benn protège buñ ko war a jëndal pour que mu mën a dox ay soxlaam ni mu waree même si tànkam bi nga xam ni moom la ñàkk euh, kenn mënu koo remplacer waaye protège boobu tey mën naa ni dina dina dina dina wàññi wala dina dina dina dina dina ko dimbali ci déplacement am euh, ni mu waree euh, moom somme bi nga xam ni moom la soxla woon pour prothèse boobu noonu deux cent soixante quinze mille la moo nekk nii dama koy génnee bu ko defee nit ñi xool xam ne ah vraiment association bi lu muy def kat lu leer la dafa am transparence lu leer nañ la deux cent soixante quinze mille yi ñoo nekk nii en cash euh, di wax ni rek ci semaine bi incha allah dinañ dem ba fi nga xam ni fa la ñu war a defee commande bi pour ñu. defaral ko tànk bi nga xam ni moom la soxla jërë ngeen jëf merci. léegi damay bàyyi malaat bi mu wax li nga xam ne moom la sentir bi nga xam ne xaalis bi génn na. ah waaw di sant yàlla rek ah. yàlla parce que la euh, l'attente bon xaar bi yàggoon na ko am mais alhamdulilah rabbil alamin bi nga xamee ni si bon vraiment euh, ñëw nañu bay. Euh, def interview bi si man bay indi xaalis bi xamal ma ni ma bon léegi du ñuy ànd dem fay wala bon je ne sais pas waaw loolu moom dama si kontaan rek vraiment vraiment di si kontaan trop trop trop trop trop quoi si association Ndimbal Njaboot vraiment si li ñu def nii tey waaw vraiment maa ngi leen gërëm quoi di leen sant bu baax baax a baax. Mm-hmm. ak fondation bi fondation. Sénégal Ndiaye yéen ñëpp vraiment kontaan naa trop daal vraiment mm-hmm. kontaan naa trop quoi si li def nii. Mm-hmm. kon mbokk yi ñun ñoo ko gisandoo xaas bi ñëw na association bi indi na ko ànd ak African Channel dañ leen wax chaque jour ngeen sànni ci seen pièce parce que liggéey bu noble la liggéey bu bu baax la parce que da ngay fekk ni ci situation nga aidé ko en plus nga fekk ko ci maladie boo xam ne ça dure des années nga changé vie du jour au lendemain kon loolu sant la kon maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di gërëm association bi plutôt Bamba caméraman bi mais aussi Demba Sibor bi nga xam ne moom moo facilité link bi di leen wax ni dinañ ñëwaat ci beneen euh, malade ak beneen numéro di leen wax toujours vous êtes sur African Channel abonnement bi tamit damay neex pour.